mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média di leen dalal jàmm ci xibaaru juróom-ñaari waxtu yi awtiis dëj dabati aar bu Sénégal ak faatu maam Say Diop bu troupe Baara Yëgo bu diwaanu Ndar tey ci suba la faatu moom maam Say Diop ci juróom-benn fukkeelu atam ak ñeent gannaaw jàngoro ju ko yàgg tëral dinoon ànd ci seede Golbert Diagne yàgg liggéeyandu ak moom waaye Lamine Ndiaye comédien waaye ju fekk këram HLM Grand Yoff euh, dal di ko faat euh, juróom fukkaat euh, ci la toll woon ñu ne cadre la woon ci xibaar ci këru ko wata gi di Renault police dal dina ci ubbi enquête xalaatam ministre Mbaye Ndiaye jëm ci euh, dakkal dawal gi ñeel transport en commun ci waxtu yenn ci xaaju guddi ngir moytu accident yu mel ni ba woon ci yoonu Kaffrine ñaar fukk ak ñetti doomu aadama faatu ci transporteurs yi àndu ci misaal Gora Khouma bu syndicat transport routier bu Sénégal ñoom jàpp nañ daal yëf ya fa ñu ko war a seeti mooy feneen ci wàllu euh, borom oto yi lànk entretien ndax ñàkk a dépensé ak doxalinu yenn ci ay chauffeur assemblée nationale tey défense opposition bi ci loxo yi soxna ay dëmboo ci fukk yeneen yëpp nga ak waa benn Bokk Yaakaar euh, taxawal gi tey lañ ko mujj amal ci euh, àllarba ji sport bi dinañ ci ànd ak Ibou Diouf. ñu dooree mbokk yi jéey ji xew tey ji ci HLM Grand Yoff waaye ju daal liggéey ca Renault euh, tolloon ci juróom fukki at ñu daal di ko fekk këram euh, daal di ko faat euh, jamono yi ñu koy boom nag moom rek a newoon ca kër ga police daal dina ci ubbi enquête ju Diouf nga foon ak Ababacar Camara. Lamine Cissé la doon wuyoo tollu diggante 45 ak 50 ans di woon cadre ca Renault ci suba gi la ko bonam fekk ñu jam koy paaka ba pare yeew ko ci terrasse bi famille bi fii ñaar ci doom yi ak jabar ji gis seen àddina tukki. ba yëf di am dem si yàlla si dong nekkoon ci kër gi waa koñ bi ne lu yàggul la jabaram jóge ci feebar ba ñaawteef gi di am Cambérène la ko fekk foofa lay dalloo ba mu génnee l'hôpital ba léegi kii di Lamine Cissé nag mi ñu faat ñu ko ay xuloowaale ci koñ bi. suñu voisin la woon suñu voisin bu baax mosul am problème fii ak kenn kenn mosu fee dëgg coowam mosu fee coow kenn. Euh, mosu fi am problème ak kenn moom li mu nekk si koñ bi bu xëyee ba dem na liggéeyam bu wàccee dugg na këram baas na otam dugg na këram tëj salaamaaleykum maaleykum salaam moom la sëkkal ak gars ak jàmm la sëkkal ak waa quartier bi mosul am problème fii ak kii di kenn ci doom yi ay jooy yu metti la dikke ci kër gi bëgg a gis papam gis gu mujj waaye muy lu jafe ndax ci biir police ak pompier ñoo ngi liggéey seen liggéeyu l'enquête li ñu jotaguma xam daal mooy li bon bi wax nee na ba muy dugg ci si kër gi ci suba tase na ak ab waxambaane mu doon génn kër gi li ci des di muñ dong loolee la leen góor gi di laaj. tis weneen ca diwaanu Ndar ak faatug maam Sey Diop euh, bu euh, comédie bu senegal ci wàllu aar bi daal ci yëngu xereñoon ci loolu moom soxna si Mame Sey Diop bu troupe euh, baar yëgoo ca Ndar juróom-benn fukk ak ñeent ci at la amoon jàngoro ju ko yàgg tëral di jabet bi nag mujj ko daal di ëpp doole ba mu wuy ji boromam dañuy dem ànd ceeg soxna Aminata Mbaxe saw laata ñuy teewlu seeday Golbert Diagne ak Lamine Diaye Mame Seye Diop génn na àddina soxna si nga xam ni joué woon na ci troupe théâtrale Bara mu ngi faatu tey ji ci suba ca Saint-Louis Mame Seye Diop ñëpp ràññe woon ko ci théâtre bi ñu tuddee Bara Yego te mu joué woon ko ak Golbert Diagne ak Marie leen jàlloo maam Seye Diop mu ngi toll woon ci juróom benn fukki at ak ñeent donte daawoon na bégal askanu Sénégal ak théâtre yu mu doon joué teewul Mame Seye Diop mu ngi àndoon ak jabet mat na léegi ñaar fukki at loolu waral sax soxna si nekkoon na membre ci association diabétique yu Saint-Louis bu weesoo théâtre bi maam Sey Diop nekkoon na animatrice ci RTS bu Saint-Louis ci rajo boobu daawoon na amal ay waxtaan yu jëm ci wàllu diine waaye tamit waxtaanee naka la ñuy def ba jikko yi rafet. Mame Sidy Diop nekkoon na tamit taalibe murit bu rëy looloo waral at wu ne daawoon na joxe kéemte lay kàttanam ci organisation de raka foofe ci Saint-Louis ak faatu soxna si théâtre bu Sénégal ñàkk nañ ko mag ñu teewluy seede jëm ci moom soxna si mam say Diop ak Golbert Diagne yàgg yëngoog moom ci troupe Bara yu góob Ndar waaye it Lamine Ndiaye comédien ce matin bi nawet bi daanoo huit heures quinze la ma mari matin woo parce que Mame Sidy nga huit heures huit diabète bi yàgg na ci moom ëpp na vingt ans mais il toujours dafa doon gérer diabète am correctement yàlla dafa ko sutura nekkuloon dans le besoin di ko gérer correctement donc tey la am crise de diabète ci suba huit heures huit heures huit mu dee yàlla dimbali nañu it mbali ci war ci moom yëpp avant midi yëpp def nañu ko eh, nekkoon na jigéen joo xam ne du fen du war du jëw du lekk ribaam du sàcc. te moo dikk nekk jigéen bi dikk taxaw ci wetu moo dikkee wàdd jàppale ko ci wàllu ñaar rakk yi nga xamante mooy l'une des plus grandes manifestations religieuses ci Sénégal ñàkk na monde culturel bi ñëpp ñàkk nañu may lancé appel fu waay toll na ko ñaanal te ñu nekk ndar juddoo fi wala am si teraanga wala di fi yeewoo ñépp mën a génn takkusaan ñu jullee ko jébbal ko boromam gunge ko ndax maam si mérité na loolu ku mu siqal àddina diine la ngor diine la teraanga jigéenu islam la ay suñu brave dame nag ñàkk naa partenaire ñàkk naa xarit ñàkk naa artiste ñàkk naa jigéen ñàkk naa jabar sama complice la woon moom ak Marie Madeleine Diallo. naqar bu ñëwee duñ mën lu mooy delloo suñu bopp yàlla ndax moom rek a mën moom rek a xam kañ la nan la fu mu naka yàlla rek ko xam. ñu ciy profité rek di ko jaal ay mbokkam di ko jaalit famille artistique bi waaye nag Mame Seye ku màgg la woon ku amoon na pexe yi culture la woon maanaam euh, mbaxitkat loolu la ñuy wax euh, tous les hommes culturels noonu lañ leen di tuddee ay mbaxitkat la ñu mbaxitkat boobu nga xam ne nii moom la doonoon yàlla daf ko defaloon xel boo xam ne nii bu ñëw la ci liggéey ba xel bu rafet bu taaru bëgg nit bëgg dajale ba eh, eh, dafa meloon ni yaay ay seede jëm ci maam say Diop euh, bu troupe baax a yëgoo wuy ji boromam tey jëlee ñu kay jàlle njaboot gi ñaan suñu borom xare ko aljana leneen ci xibaar ñeel xalaatab ministre intérieur mbay Ndiaye ci ñu dakkal euh, tukki mi ci guddi gi ñeel yenn transport en commun la mu ci jublu rek mooy yéeneem euh, wàññi bu baax accident yi wala daal di ko fi jeexal ci na muy faateeg bakkan yeeg lim gi nga ci mujj yoonu kafrin bi ñaar fukk ak ñetti doomu aadama yi ci faatu waaye xalaatab jëwriñ ji nu dénk biir réew mi du transporteur yëpp ànd ci misaal góor xuma bu syndicat transport routier moom yëf yëf fu ma ko gis mooy ci wàllu ñàkkam entretien borom woto yi ci booleeg neeg yeneen ak doxalinu yenn chauffeurs yi Fatou Bintou Konté Ibou Cissé. génn bi nga xam ne ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye wax na ko démb ci accident bi amoon fee ca kafrin di xam leen ni chauffeur yi bu sañoon jamono ji voyage nocturne yi dañ koy bàyyi moom nag neexul dara ki nga xam ne moom mooy Gora Khouma moom mi ngi ñaan mbay Ndiaye mu delluwaat ca la mu waxoon. Mbaye Ndiaye xalaatam la wax en tant que ministre Mbaye Ndiaye bu taxawee ne léegi damaa bëgg gros porteurs yi ak auto transport de personnes yi bu kenn daw guddi ñun dañuy wax ne ñu ànduñu ci ndax moom bu bëggee génn day génn oto ndaw yi dañuy génn te xool leen oto ndaw yi ak yore bus bi ak yore leel ay dawalkat la ñu moom Gora Khouma nag di ab syndicaliste bu mag di défendre ñi nga xam ne ñoom ñooy transporteurs yi nag jàpp na ni visite technique yi nga xam ne moom moo tax accident yu bëri di faral di am ci yoon yi li ci ëpp faute bi du employé yi mais employeurs yi ci boppam na ndax nee na ñoom ñoo nangut a génnee xaalis ngir defar seeni oto oto ñaar ko yore ki moom carte bi ak ki nga xam ne tey jii moom moom permis de conduire am kii oto moom bu sañoon oto bu bees tàq lay dawal mbaa boog boo xam ne bii bu beesu tamit fu ko fu mu taxaw taxaw fa mais nag ki moom otaam kooku jombul mooy nungu ak bañ mais ñun ñi nga xam ne ñooy def accident ñooy dawal oto yi bu sañoon oto yëpp ci centre visite bi la ñu nekk ba bu ñu fa jógee dañuy normal mais kii moom otaam nag jombul moom moo xam raison yi tax mu ne sama oto du ma ko yóbbu centre visite technique bi jamono ji ñuy joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñuy joxe permis de conduire yi mais goro a xuma jàpp na ne ni ñooñu duñu ci lenn ndax nañ koy joxee ci anam yu leer lañ koy joxee jamono ji kay lu ñu mun wax mooy ñoom chauffeur yi bu ñu xasee ba jot seen permis nu leen neex doxalee xam nga nelaw boobu moo dul yoon man damaa bëgg nit ñi xam ne góor a xuma àndul ak benn yoon kii tux yàmba toog ci volant bi kii naan sàngara toog ci volant bi ki gëmëntu toog ci volant bi góoru xuma àndul ak waa jooju gisa waa ji buy jël si permis buy nekk buy buy buy euh, buy euh, ut si permis day ànd ak ab yar ak teggin ak xam-xam bu mat sëkk lay àndal ba waa wóolu ko jox ko permis xam nga problème fan la nekk waa xase ba jël permis nag ba def ci poosam foofu la comportement bay changé ñu ne permis bu baaxul permis bu baax na waa ji moo changé permis gisuma man gisuma fu ñu maye man fa may gis ñu joxe permis dama ñu fay dàq nit lu bare bare bare kon ku am sa permis yaa dem ba ci jot sa permis changé conduite changé beneen comportement. Sénégal jàpp nañu ne accident yi dafa bari jamono ji lool ci tali bile bu démb bi rek ci mujj ci yoonu Kaffrine bi ñoom ñi di chauffeur yi nag ñu leen di ñaax ñu xoolaat seen comportement. wax nga ko Fatou euh, Bintou Konté yoonu Kaffrine beek euh, jéey ju mag jafe xewoon ñaar fukk ak ñetti doomu aadama faatu ci ñu bari ami gaañu gaañu askanu Sénégal ñenn ci ñoom ñaaw lu ko tiisoo ko yi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw jóg ci matuwaay ndax jóg jot na ci seen gis-gis ñenn ci ñoom askanu senegal euh, ci micro Maguette Niang président bi bu doy waar la affaire bu metti la tamit safari dañoo war a dimbali nit ñi te yàlla tax di daw ndànk ndax daw ndànk dal ndànk waaye li dafa metti nekk xam nga loolu loolu normalul. accident boo xam ne accident bu gën a métti ci àdduna ci atam bi moo gën a bon métti rek accident boo xam ne yaa vingt trois morts sur wax dëggal dafa nekk loo xam ne duñ ko war a seetaan la. oto yi moom dañoo war a wàññi di daw si guddi suñuy daw tamit ñuy daw du doucement. lépp nag seen seen ci ci ñoom la ci chauffeur yi kese la lépp ci ci ñoom kese la war nañoo dimbale nit ñi te yàlla tax di daw ndànk di dal ndànk. sax d'abord xale yi ñu war a jox permis duñ ko war a seetaat du ñu war a jox permis xale yi tuuti yoo xam ne amuñu benn responsabilité nga jël sa kapp ba door sa bopp bi doy ko doogu mun a gis nga def lu la neex nga ma soit ñu jël ay drogue ñu ci topp ci tali bi loolu moo tax muy li accident yi la gën a bari. camion yi gis ko ruq su xat soo xamante ne nga gis nga na maamu camion bëgg cee lu jaar ci xam loolu dafa doy waar. nguur gi war si taxaw bu baax. war si taxaw taxawal taxawal ay matuwaay yu baax pour loolu mën a wàññeeku parce que accident yi suñu si taxawee rek dina wàññeeku bu soob yàlla incha allah. nguur gi ñoo ci war a jël jël ci ay mesures yu sincère yoo xamante ne dañ ko ciy def yoo xamante ne lu nekk la teg seen kaw di dal ci seen kaw bu baax ñu ñu doog a nekk nit waaye di rey nit comme ay xar lii dafa ñaaw dafa metti balaa ngaa jox permis dañu war a seet sa as bi nga am ak ban responsabilité. ba du question yi dangaa yor xaalis rek nga dem jënd perme nga dugg ji tal bi ngay dawal ngay indi njaaxum. ñu waxtaanee wàllu politique assemblée nationale tey la ñu mujj taxawal commission yi seq penc ma fukk ak benn ci la toll bu weesoo benn bi nu baaxee opposition bi yoon ak penc mee ko wax ci loxoy soxna ay dëmboj la tegu ñeel wàllu sécurité karange fukk yeneen yaa nga ci waa benn Bokk Yaakaar tey nag ndaje mi ci teewaay soxna Aminata Gueye député euh, bu diwaanu Ndar moo jiite commission bi ñu dénk wàllu éducation ak sport Moustapha Diakhaté la ñu ci àndal jiite groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ci micro Adiyatalla ak Hamadi Biagi nit buy tabax da ngay tabax lu dëgër tabax lu dëgër bi ñëwee ci biir plénière bi commission yëpp à l'unanimité lañ leen lañ leen euh, ratifié benn député ñëpp a wote loolu lañ doon togg bi ci des mooy bureau commission yi yëpp c'est à l'unanimité lañ leen fale kon rabax-rabax yi ba yàq dox ndànk ba àgg fi nga jëm moo gën moom Aminata Gueye mu mag mi ma ne ko ban liste nga nekkoon mu ne ma Ndakaaru ma ne ko ah Ndakaaru man maa nekkoon tëdd liste te nekkoo ci kon xam naa xëy na dangaa jum mu ne man nag joxe woon nag euh, investi euh, dossier d'investiture am euh, waaye nag dafa tukki woon bi ma waxee loolu ma ne ko daal Aminata Gueye mi nekk député du yow ndax mi nekk député Ndar la dëkk te xale la xëy na dangaa jum defal ko erreur la mais jàpp naa ne aussi am na nag lu ñu ci war a jàngat mooy bu ñuy defati rentrée parlementaire war nañu di vérifier ñii ñëw ñu mu. Moustapha ju ñu ne ko wuute amoon na ci wàllu ñaari Aminata Gueye ndaje ma foofee ñoom ñaar ñëpp wote boo keroog ca bi nuy taxawal bureau assemblée nationale euh, ci mujjantal ñu gis ne téeméer ak juróom fukk ak benn ci député ñoo voté waa opposition bi ne loole jalgati la jokkoo ci conseil constitutionnel ngir niilal bureau bi bureau boobee ci njiital président Moustapha Niass euh, lu ca yoon wax ndax ak niilal na ci am ci mujjantal ñu ànd ak Ibou Kane ak Aline Diagne. mbirum Aminata Gueye mu ngi wéy di jur coow lu bari ci réew mi. gannaaw bi ndaw si voté ca ba ñuy tabb bureau assemblée nationale te yoon mayu ko ko opposition bi di ŋaññi lu ni mel mel ne dafa fas yéene topp mbir mi ci yoon ngir ñu neenal ko waa ndax rëx-rëx boobu mën na tax ñu neenal vote gi. élection su amee mën nañu gis sax ni am na rëq-rëq si si wot bi waaye loolu tax mukk juge bi ni donc dañoo annuler élection yi li ñuy wax nii soo ñëwee Sénégal France yëpp gis nañu ba tàyyi juge bi wax ni lii daal am na rëq lii am na gàllankoor mais taxul mu ni duñ koy annulé. voté Aminata Gueye ñu jàpp ne kon xob bu neen la opposition bi bu ko soobee mën na dugal recours wante recours boobu est-ce que mën naa antu. juge bi lu muy faral di wax ci cas yu mel nii mooy ne dëgg la am na irrégularité waaye irrégularité bi mënul euh, euh, kii euh, entaché mënul tax mënul neenal élection bi. donc li muy faral di def mooy irrégularité lay sampi teg ko fële xool euh, résultat wu euh, vote bi bu fekkee ne irrégularité boobu mënul euh, yàq résultat wu vote boobu duñ ko jël en considération donte nag nemmeeku nañ càggante gu ndaw ca ba ñuy tab bureau assemblée nationale bi wante loole mënul tax nag bureau bi ñàkk a légal baccalauréat 2012 euh, tey ji jile ci wàllu épreuve yi candidat yi seconde wàllu français gi la français gi nga xamante nag du ñëpp ko dégg Pierre da Silva ak français njalaxaan gi euh, professeur yi nag ci wàllu kon ñàkkum déggum tubaab ak gune yi ku ca nekk la nga gis ne daal mooy li ko waral yooyu professeur ci wàllu littérature gën ci joxe seen xalaat ci gëstu Fatou Kiné Deme ak Mar Dieng jafe na tey jii ci nga gis ab ndongo bu nekk ci daara yu ndaw yi wala boog daara ju kawe ji di université buy wax nasaraan bu leer ñii di waay jur yi nag ñu jàpp ni am na ñu part de responsabilité ci jafe-jafe bii. nit ñi jamono daf leen daf leen ngalab li ñuy wax ci Saloum daf leen ngalab euh, ba tax na vraiment li nga xam ne moom la ñu waroon di euh, mën a toppatoo seen njaboot defuñ ko. beneen seetlu bi mooy. ndongo yi gëstootuñu ci téere yi te buñ dee seetlu loolu lu am solo la ngir mën a làkk bu baax nasaraan. man nag li ma jàpp ne moom. moom rek rek rek moo mën a ubbi xeli doomu aadama may ko mu yor toll ci yenn maqama yi nekkul dara lu mooy nafar nekk ci livre yi di gëstu di nafar di nafar ba li nga war a xam yëpp nga xam ko ci leneen nag ñëw comme complément waaye mënoo jël sa lépp tënk ko bàyyi ko rek ci civilisation de l'image nekk ci ay image di xool di xool yaakaar ne loolu mën na lay jox li nga xam ne moom la culture livresque doon joxe. mu mel nii wàllu tàggat yaram bi di làmb bokk na ci liy nasaxal kàllaama ji. làmb nag egg na tey ji foo xamante ni ndaw ñi wutali nañu ko bu baax waaye ana lu cey seen njariñ ñu xamal xale yi na leen lii amut mucc maanaam làmb parce que làmb man du culture làmb fola te xale yi dañ ko jël nag fu mu ne nii dañ nit ñi dañ koy présenté comme culture mu jaral leen lu lépp te loolu conséquence bi muy def mooy li nga xam ne moom la xale yi waroon a def muy euh, njàng mi nga xam ne mooy jëriñ di leen ay ubbi parce que réew yi nga gis yëpp tey muy États-Unis muy Japon ñu taxaw ci euh, ŋànk euh, koom-koom réew mi. amewuñ ko dara lu mooy ci li nga xam ne moom lañ financé ci mbirum njàng. bu ñu sukkandiku ci kàddu Pape Modignon diplôme kese doyul ngir nga mën a am xam-xam bu tëree ndax àdduna am njàng kese la te comme ni ko boroom xam-xam bi di waxee lépp loo jàngul tari ko dina la jafe. Euh, danuy des ak njàng meeg euh, waa Sédhiou ren grève ya bari na foofe waaye inspection d'académie diwaan ga ci wàllu résultat BFM bi am na ci yu baax téeméer boo jël juróom-benn fukk ak ñett yu tegal euh, ci wàllu nag privé gi la résultat ya bone jamono yi inspection académie bi nu dénk njàng mi foofe ca Sédhiou ma ngay waxtaan ak professeurs yi nag ngir ñu nangoo joxe note yi ñu mën a orienté élèves yi Bakary Konté la ñuy dem fekki Sédhiou ak Thierno Laurent Mendy inspection d'académie bu Sédhiou depuis ñi créé ko mat na ñett at ren la gën a def ay résultat yu baax ci BFM. buñ ko euh, comparé ak résultats yi daaw yi ci waxtu wi dañuy gis ne am na amélioration am na jéego ñu def ndax boo jëlee hmm, kii bi résultats yi jot a génn boo jëlee téeméeri xale boo jëlee téeméeri xale euh, ñaar fukk yi ak ñaar admis nañ d'office. Euh, ci ñaar fukk ak ñaar yu admis d'office tamit am na ci ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne dem nañ deuxième tour donc boo boolee ñaar yi da ngay gis ne boo jëlee téeméeri xale presque juróom-benn fukki yi bu ñu paree ci ci ko juróom-benn fukk yi dañuy admis loolu nag mu nekk résultat yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun mosuñ ko am Sédhiou. wante nag ci école privée yi gis nañu résultat yi baaxuñu ba tax na union régionale parents d'élèves yi di ko ñaawlu ñoom nag ñi ne école privée yi lu ñuy defee recrutement moo baaxul fii ci diwaanu Sédhiou. xëy na man daal ni ma ko jàppee mooy recrutement élève yi parce que boo ne man principal la suma école bi war na dox suma école privée war na dox école élève bu ñëw rek ma passé ko mu dem yoonam mu mu mu jàng non dangay ngay am euh, euh, not xale yi. après avant en fonction de not xale yi nga xam ni loo leen def defee soit ñu redoubler mu su la nee déedéet man dama bëgg a passé nga ne ko déedéet doo passé da ngay redoubler su buggee redoubler mu redoubler su buggee nga bàyyi ko mu dem yoonu mais euh, nga ne ko mu ne la waaye damay passé te moyenne bi baaxul avec euh, trois de moyenne mu ne la damay passé troisième da ngay bañ. rétention notes yi nag fu mu nekk nii inspection d'académie mu ngi waxtaan ak syndicat yi loolu nag pour professeurs yi mun a joxe notes yi loolu nag pour ñu mun a éviter blocage yi si orientation yi. ñu egsi ci wàllu sport ak Ibou Diouf maa ngi leen di Ibou. maa ngi lay fay El Hadj Assane ñu doore rek. jeexale ko rek li nga xamante ne mooy basket ak conférence de presse bi président de la fédération joxe tey bi mu doon jàkkaarloo ak ñi nga xamante ne ñooy taskatu xibaar yi nag ñëw na ci li nga xamante ne ci at bi moo ci dox ak li ci safaano muy ñaan nguur gi rek ñu gën a jàpp ci basket bi xanaa rek ñu déglu ko ci micro Aziz Ndiaye. vraiment mun nañu suñu jaanu wàcc na parce que xam nga ne depuis bi ñu jëlee fédération bi. Euh, suma équipe bi ak ban euh, amoon nañu liggéey yu rëy yoo xam ne mu ngi ñu doon xaar moom mooy euh, d'abord éradiquer violence bi nga xamee ne moom moo amoon ci biir Marius Ndiaye ñëpp gis nañ ne Marius Ndiaye mais bu bu basket bu daan am fii. match basket bi mu du egg. Euh, yéen gis ngeen basket bi nu muy doxee et c' à mieux pour le pour le spectateur c' à mieux pour la presse c' est à mieux pour les joueurs. ngeen ne tey arbitre fi mu ne léegi de mën nañu dugg ci stade bi arbitre ba mu neex leen kenn ñemeetu leen saaga kenn ñemeetu leen dóor kenn ñemeetu leen sànni xeer je crois que loolu mooy si donc je dis globalement vraiment lu ñu def c' est positif. ñu ngi remercier gouvernement bi di remercier membre gouvernement yi xam ne yëpp teew nañ ci vraiment ñu ngi leen di remercier amuñu seen pay dama bëgg wax président rek. terrain bi nu ñu koy utiliser fii ce n'est pas normal terrain bi du terrain basket terrain basket la on a dépensé plus d'un milliard boo xam ne terrain bi ba tey réceptionné wuñu ko un milliard defar parquet bi defar trois bi defar lépp mais réceptionné wuñu ko donc ce qui veut dire que tant que ko lu fi yàqu munuñu ko defar. jërëjëf Abdoul Aziz Ndiaye El Hadj Assane loolu la ñu indi woon tey rek xanaa ma laaj la rek li la gën a marqué ci JO yi. jeux yi bon peut-être euh, bolt rek boltati laay wax sax ndax moom daal euh, jamono yu mu ñëwee rek wan moom tànk bi keroog maa ngi koy wax mbalal mel ni ay ressort ci ne mhm. en tout cas jàmbaar la bu doon euh, jamono ba ngay sàcc mango ca seen dëkk xam naa ku mu dugg sa tool doo ko jàpp moom i seen bolte wute lool ak ki ngeen di dajal vingt ci français bi Khalifa Diakhaté moo leen di faram-fàcceel xibaar yi ci français incha allah vingt lay doon ñu ngi leen di ñaanal mbokk yi panaanuk jàmm ëllëg juróom-ñaari waxtu Ibou Kane